asalaamaaleykum uh, mbokki Ngumba asalaamaaleykum mbokki Sénégal uh, ñu ngi fii ci uh, Géoul TV ak émission bi ñu wax gindi askan bi te nag ñu dalal ci doomi Géoul ñu dalal ci ñi nga xam ne mooy étudiants yi ñu jàmm ko ñu toog nii tey jii ah ki nga xam ne moom la ñu toogal nii mooy seen président président nuyu nañ la. ñoo ngi lay fay album. waa président ñu bëggoon a xam na moo waral seen jotaay bi tey jii fii ci Géoul TV. waaw. apa ñoo ngi leen di sant yéen waa Géoul TV di leen gërëm ci initiative bu rafet bii nii nii tey ñoo ngi ñëw fii nii nii ñun waa ASEC moy association bi nga xam ne si nii mooy kuréel di jiite étudiants yi ngir regroupé étudiants yi yëpp si Géoul ànd ak sama président eh, sama président de la commission sociale Ibrahima Diouf ak sama vice président Madieye Mbengue man en tant que président aussi de la structure Mame Cheikh Sila ñu ñëw fii ni tey ji pour waxtaan ak waa nguur gi yëpp ci situation yi nga xam ne si nii étudiants yi ñu ngi koy dund si université yi nekk si Sénégal yëpp. ah waaw ñu gis euh, ngeen nekk association te bu ñu association bu ñu ko déggee muy mbooloo te li ñu ne mbooloo mooy doole te aussi tamit euh, mbooloo laaj ni yëgoo mm-hmm. ndax ba ngeen di ñëw fii. am ngeen accord ñi nga xam ne ñoom ngeen jiite door a teew si fii ci Guimel TV. merci Alpha wax nga dëgg ku wax association wax yëgoo mooy système d' information comme ni ñu koy waxee sa information boobu noonu am nañ ko mooy waxtaan ak ñun suñu mbokk étudiants yëpp parce que nii nii nii yaakaar naa wër nañ université Sénégal yëpp depuis ñetti fan ñu ngi si terrain bi jaar nañ Ziguinchor jóge Ziguinchor ñëw Kaolack jóge Kaolack ñëw Bambey jóge Bambey dem Thiès Euh, dam Dakar démb ci guddi leen jógee Saint-Louis waxtaan nañu ñoom wax yëgal na leen tamit ni leen tey étudiants yi nga xam si ñi ngi woon sur le terrain daan dam tey si Géoul Art TV muy tele bi nga xam si nii nii nii mooy télé bu ngumba bi pour waxtaan ak askan waa ngumba yëpp. Mhm. waaw mu dégg nga ne da doon def tournée dem Casamance ñëw Thiès dem Saint-Louis lan moo waral seen tournée boobu ngeen doon def diggante. gox yooyu ngeen jaar waaw tournée bi li ko war waraloon mooy ñun ay doomi ngumba lan jiite kuréel bi ngi xam ne si moo jiite ndonga daan naa ñu li ñuy dund metti na si université bu nekk mais tamit foo damul mënoo xam la fa nekk. léegi bi ñu demee ba foofu noonu ñu xool càmbar li nga xam ne si nii mooy dindi ñu fa nekki Ziguinchor dund ñu metti na dëkkuwaay yi amul étudiants yi da ngay gis ko xam ne dafay ñëw du fa toog une semaine benn weer abandonné ñibbi si géewul ñëw toog di ñu dem Bambey même problème yi moo fa nekk Thiès même problème yi moo fa nekk Dakar tamit moo gën a pur tamit parce que foofu moom duy seet yu n'importe quoi encore Ndar démb bi ñu fa demee même étudiants yi même problème la ñu wax jooytuñu euh, mooy situation yu demee noonu yu metti yi ñu dund ci campus sociaux yi yi nekk noonu donc loolu moo tax ñu doon def tournée bi waaw tam xamante ak ñoom mm-hmm. euh, xamante waa étudiants yi géew yi nga xam ne si ñëpp géew la jógee dem si université yi mais aussi ñaax leen pour ñaax leen aussi tamit ñoom ñoo xam ne géewul leen nekk tey ak lii ni doon suba géewul moo leen ba def ñoom ñëpp géewul leen jàngee géewul leen amee ba donc yoon la ñu dellusiwaat ñoom ñëpp géewul pour mën a participer si développement géewul na la ñuy participer si développement géewul tamit mooy ñu dellu si xam ne fii leen bokk sa bis buñ booloo ñu étudiants yi liñ bëgg daan ko mën am ba daan mën a saafara dundin wi ni nekkee si université Euh, maam Cheikh ma dégg sa biir wax nga ne dafa am jafe-jafe yu ngeen fay nekkee dundi nu metti wan mm-hmm. façon jafe-jafe ngeen nekkeen foofu ci université bi ngeen nekk. waaw université yi nekk bi nekk problème yi nekk Ziguinchor moo nekk Dakar moo nekk Thiès moo nekk Saint-Louis. Mm-hmm. dundi nuy étudiants yi amuñu fu mu dëkk. amuñu fu mu dëkk tey mm-hmm. amuñu dëkkuwaay. amuñu dëkkuwaay problème ñu xamante sax problème la. parce que souvent da ngay dégg ñu naan géewul amul étudiant mais am na parce que étudiants yi am ci yeneen communes yi am ci yeneen régions yi amul géewul tey da ngay gis benn étudiant jéewul bu dee Ziguinchor la mu dëkk biir campus kii dëkk Bukot kii dëkk Kajoor mm-hmm. daan jàng ba étudiant ba tëj duñ xamante seen biir mm-hmm. dakaar la même chose mm-hmm. moo tax étudiants yi dëkkuñu ensemble dëkkin boobu dana am da ngay gis étudiant boo xam ne dañ koy yóbbu Ziguinchor du am fu mu dëkk day obligé bàyyi toog di wër dëkk bi di taxawaal Dakar da gis étudiant boo xam ne day quitté chaque jour Kër Massar bala mooy yegg tardé cours bala moo ñibbi si heure tëdd jot mu tëdd nelaw di jàng leçon deux mois deux mois mu du jàng du kii troisième année bi wala deuxième année bi mu cartouché ñu dàq ko mu ñibbi. problème yooyu noonu mooy problème yi nga xam si mooy étudiant géewul souvent da ngay dégg ñaan étudiant géewul amatul étudiant mais li tax géewul amatul étudiant mooy problème yi nga xam si étudiant yi ñu koy dund parce que mënoo tey doo jàngi wala boo jàngi da ngay tardé boo ñëwee da tëdd nelaw doo am temps jàng leçon nga ne da bokk si étudiant yi dàq jàng si monde bi donc problème yooyu noonu suñu mënoon a am résolution boo xam si daan mën a teel a jàngi daan mën a teel wàcc ñëw concentré wu jàng dina mën a am étudiant ak géew li nekk si étudiant yi xam ne moom la ñu gën a ràññee si si Sénégal. Mm-hmm. yow daal bu ma déggee sa wax yow problème mu dëkkuwaay ngeen am. waaw problème mu dëkkuwaay. mooy mooy seen problème euh, problème mu dëkkuwaay euh, ak ak ak daanaka lekk geek ak ak kii. waaw mooy seen problème. waaw ndax ndax loolu yàggul am université loolu yàggu ci problème mu dëkkuwaay ak le ak euh, maanaam lekk ndax yàggul ci côté waaw problème mu dëkkuwaay ak problème mu lekk yàgg na université. Mm. parce que université moom problème yooyu yàgg na fi mais dafa gën a pire. Mm. parce que boo xoolee année yii yëpp daan ko jéem a sooxaale ndànk-ndànk. Mm. mais li ñu daan ko sooxaale yëpp day am ay conséquences. mooy dina am étudiant yu dàq. dina am étudiant yu ñibbisi. parce que tey ñaata yow boo génnee sax fii nii étudiant étudiants yi ngay taseel souvent. des fois da ngay tase ak étudiants yi di bokkaat ñoom parce que li tax ñu jógee foofu ñëw fii toog jàngeetul y a des raisons de question dina bëgg a jàng mais dina amatul dëkk wala ñu dàq leen wala mënatul supporter yenn kii ñu ñibbisi mais problème yi daan am bokkut ak yi am sa ren dafa gën a pur parce que ministre de l' supérieur daaw dañoo defoon ne euh, privé yi dañ fay orienté mm. su privé yi bu ñu daan fa orienté sax daana wàññi taux bi mm. ñu xam si daan daan dëkk yi si seen kër mbokk wala seen kii mu jege privé yi biir Mermoz biir Colobane biir kii mm. mais ren nag dañ ne étudiants yëpp ci université publique yi la leen orienté parce que boo jigee demee tey Ziguinchor université bu ndaw la parce que dañ nekk en boo xoolee sax tëj nañ mais

waaw bala ma jox kàddu gi eh, damay sama naataango muy laa jaañ mm-hmm. mu yegg si dafa xamoon am retard tuuti kon jaañ ya, ñu ngi lay eh, nuyu mm-hmm. eh, di la jaajëfal di la jox suñu invité yi nga xam ne lañ dalal tey muy étudiants yi mm-hmm. nga am kàddu yoo leen mën merci Alpha merci di excuser retard bi ngi président ak ma keneen booy xaw a miiruma kanamam Ibrahima Diouf euh, di tamit teewaay bi ngeen teew yi pour gindi askan wi si situation étudiant géew yi parce que ñu bëri jaaxal na parce que bu yàgg étudiant surtout ñun bañ ci tollee activité étudiant yi da daan bëri fii n'est-ce pas daan bëri si dëkk bi temps vacances fet bu jot étudiant yi daan organiser ay cross de masse ay ay ay semaine sportive wala weekend sportif mm-hmm. léegi nag gisatuñ loolu. Mm-hmm. moo tax ñu bëri doon wax ni est-ce que étudiant amati na géew mm-hmm. n'est-ce pas mais d'après li ma jot a dégg problème moo tax mais li ma jàpp tamit mooy taux de scolarité bi dafa ëpp léegi géew parce que boobu nombre restreint la ñu woon. yaa lañ daan nekk boobu sax Dakar ñun temps yi mais léegi ñi ngi dem Saint-Louis ñi ngi dem Ziguinchor ñi ngi dem Bambey ça veut dire kon étudiants yi dañoo yokk nombre. je me rappelle il y a de cela trois ans on a dem yóbbu ay élèves foofu ñu def visite mais jaaroon nañ ci benn kër ñu ne kër étudiant yi la n'est-ce pas à Dakar loolu dafa amatul wala waaw monsieur Diagne comme ni nga ko waxee noonu solution amoon na bu njëkk mais jamono jooju tamit boo xoolee parce que Dakar Saint-Louis rek université subvention bi bu daan génn yaakaar naa bu Saint-Louis 5 étudiants ñoo dafa nekk six sur les cinq étudiants qui est Dakar euh, subvention de danañ les étudiants de Dakar léegi bu ñu les étudiants de Dakar subvention bi noonu permettre ñom ñu jël ben appartement bo xamni ci moo kam tey man ma ngi koy bima nek ma nekk étudiant am ak ñoom Dia Sy appartement face. appartement boobu non c'est ça non na ko doxale mais boo xoolee tey Saint-Louis dem bi fa demee présenté nañu maanaam benn étudiant bo xamni liste d'étudiants bo xamni ci 53 euh, étudiants régulièrement inscrits Géoulwa Géoulwa yoo xam ne si ni nit Saint Louis leen di wax te ñoom ñep kenn amu ci logement tay bo jëlee benn subvention bo xam ci ni bu njëkk 1 million 400 000 la en 2014 avant 2014 c'était 1 million légui ñu accordé légui les 1 million à euh, Dakar 1 million actuellement à Dakar mënu am appartement biir Colobane ba fas réellement tamit bu leen joxé 1 million 400 000 tamit Saint Louis am problème Bambey kër bi fa démé appartement jàmbur la ñu dalal. Ziguinchor kulo kulo la dëkk ñu ñu sax man fa laa nekk xam naa baax ci li ñuy dund donc loolu moo tax actuellement problème yi dafa yokk étudiants yi yokk mais université yi dafa yokk loolu moo ndax ndax un million quatre cent yi yéen yéen yéen yéen ñëpp a koy bokk ini wala wala wala par par kii la secteur la exactement un million quatre cent mille yi AGEC la mooy étudiant géewul yëpp privé bi sax si la bokk privé bi sax nu war a protester ñoom parce que si leen bokk parce que képp kuy doomu ngumba rek si un million quatre cent mille si nga bokk parce que bi ñu demee Saint-Louis am na étudiants yu souligné Thiès am na étudiants yu souligné yoo xam ne ñu ngi privé bi dañ ne carrément les étudiants qui sont dans les universités privées sont tellement marginalisés dañ leen a donc actuellement situation yi dafa metti moo tax euh, problème yi yokku na université yokku na mais tamit suñ sañoon tamit subvention bi mën a yokk ba étudiants yi mën di dajaloo di xamante di mën jàng ndox ma. waaw léegi est-ce que def ngeen benn jéego. Hmm pour waxtaan ak maire yi ñu jéem a yokk seen loxo puisque ay étudiants ngeen léegi da ngeen di da ngeen tasaaroo. Mhm. maanaam ngeen def ko certain benn benn kii boo xam par exemple ku nekk da si mën a jëm par exemple comme un million quatre cent la woon. Mhm. léegi il y a j'espère cinq universités. Mhm. Dakar Saint-Louis Ziguinchor Bambey ak. Ibrahima Niass. ak ak Thiès ah. mais ak Ibrahima Niass ak Ibrahima Niass léegi bu ngeen ko defoon nag léegi est-ce que def ngeen benn yoon sàpp. Mm-hmm. si mairie bi. Mm-hmm. pour ñu jàppale leen au moins ñu yokk parce que ñuy gis nañ ni investir si xaalis bi fere foo xam ne wax dëgg yàlla. Mm-hmm. fii tamit priorité la. n'est-ce pas ndax njàng moom kenn amul fayam. est-ce def ngeen benn jéego en tant que président. ngeen def benn jéego pour waxtaan ak maire bi. wala waa municipalité bi conseil yi nekk foofu pour ñu jàppale leen pour ñu yokk subvention bi. waaw léegi dañ question bi jox ko euh, kii moo tontu ci question boobu. ah balaa ñuy tàmbalee.

mu dem ñibbiwaat fële la ne sa caabi nekkul loolu nag mu nekkul loo xamante ne si gënal nañu ñun ñi nga xamante ne si ñooy coordonné parce que comme li ma tàmm di wax rek suñu étudiants yi nekk foofu noonu man leen dafa am ñetti mbir yu am loo bokk loo moom ak lu nga xamante ne si dañ la cee boole te buñ nee ASEC étudiants yëpp ñoo ko bokk kon amul benn doomu géwul buy jugee géwul dem ba Ndakaaru am problème logement ñu am benn chambre wala ñaari chambre esprit de solidarité boobu am ci ñun moo waral ma leen di wax bu jaroon sax ñu jël benn chambre boobu def suñu bagage ñu ñëpp bu guddee ñu dem tëdd ci couloir couloir yi dañ koy def parce que ñun esprit de solidarité boobu noonu moo ñu animé ba tax na loolu ñu koy ñaawlu trop tey sàkku bu baax a baax a baax a baax comme ni ko président waxee rek lu jëm ci wàllu logement ñu kiiwal ñu ko par rapport ak question bi nga xamante ne si wax nga ko est-ce qu'on a déjà entamé des démarches au niveau de la mairie oui par rapport à ça je vous dis bien sûr nous nañ woo monsieur le maire à une factorielle reprise même mais on n'a pas pu le joindre ñu avons son nature, monsieur Abdourahmane qui a eu la grandeur de nous recevoir dans les cas foofu la ñu jugee tey jii fa la avant. bi ñu paree tourne bi rek lañ fa jógee ñëw ba ci moom expliqué ko lépp ni mu moom nag xamal nañu ni ak budget bi nga xamante ne si mairie bi am na ko il ne va pas nous rassurer que ni dina jël engagement di jël appartement pour région bu ci nekk mm-hmm. ah mu doon loo xamante ni si tamit nangul nañ ko mm-hmm. waaye nee na dina jéem a def ay jéego mm-hmm. nee na dina jéem a def ay jéego ngir xool lan lañu mën a jàppalee par rapport à ça waaye loolu yépp daal daanaka jëluñu ko ñun étudiants yi jëm koo wékk si ndodd mairie bu Géoul déedéet parce que Géoul yaa de ces fils yi nga xamante si fii leen juddoo géwul moo leen jox lépp lu ñu mëntu am donc juguñu ngir tàllal loxo mairie boobu kase mais dañ ko tàllal bépp doomu Géoul képp koo xamante ni si rek Géoul moo la def ni nga mel. parce que ñooñu suñu ay doom lañu suñu ay rakk lañu suñu ay sœur lañu ñoom ñoo nekk fële na di souffrir rek yaakaar naa ne képp ku nekk su ñun rek ku ci amul doom amoo si rakk rek am nga si kaw xamante ni kenn la tàllal loxo waaye mbooleem koo xamante ne si mi ngi fiy géwul ba pare jàpp ni kat war na ci mën a jëf dara ba cette situation am mën a améliorer wu su nekkul à 100 pour cent sax nekk a une hauteur de. 70 pour sama ndax ndax noonu ngeen eh, demee ci wooye maire dem ci Abdourahmane ndax yeneen autorité nga xam ne ngi fii ci dëkk da ngeen am yaakaar ci ñoom ndax ñu jot ngeen leen waxtaan ak ñun kan eh, waaw par rapport ak loolu noonu ma di la ko rappelé waat initiative bu bees la bépp bureau bu fi mësa jaar bu di def loolu nekk da nga daan sa rek bañ su sa problème morom waaye ren dañoo jël engagement déterminé wu def lan tour université yëpp pour xool problème bu ñu ñëwee nag ca maire lañ jubal directement Abdourahmane exposé ko problème yi te noonu ñu ko defee ci Abdourahmane noonu la ñuy continuer di ko def ci bonne volonté yi te incha allahu rabbi bu ñu fii dinañ dem Dakar ak képp koo xamante ne si yaakaar nañu war ngaa mën a apporter dara face à ça rek dinañ sol daal dem foofu noonu voilà waaw euh, ñu ngi lay jërëjëfal kàddu gi rafet na. muy jafe-jafe yi nga xam ne am ngeen ko ci université bi foofu euh, ñu laaj jafe-jafe yi lan moo war a jafe-jafe yi ak lan ngeen yaakaar ne jafe-jafe yi loolu ko war a mën a ñu nga xam si ñu ngi seetaan à travers Gueoulart TV euh, comme li nga xam si ñi ma jiitu wax ko à savoir le président le PCS muy problème yi nga xam si évoqué nañ ko. comme ci li nga xam si daanaka moom la moom la étudiants yi di dund. nga xam si ñu ñu ngi nekk ci différentes université universités yi nga xam si ñu ngi Sénégal comme ni nga waxee rek président daanaka wax na ko ci ay waxam. moom laa moom bu njëkk amatul te léegi étudiants yi dañoo gën a bari. aussi université yi dañoo gën a bari. aussi la vie tamit dafa gën a cher. logement yi tamit loyage tamit dafa gën a cher. léegi nag moom étudiants yëpp dañuy manqué woon ne amuñ fu donc moom boo xamul foo dëkk moom su leen Dakar nga xam ni même boo wàccee 18 heures wala ñibbi caaxi ak tata yeeg yooyu noonu moom boo àggee moom doo jàng ngay dem rek tëdd mm. te loolu moom mooy tax daanaka doo fa yàgg sax da ngay redoublé mais nga cartouche après da ngay daal mm. yeneen université yeeg noonu boo demee Ziguinchor ña fa nekk xamuñu ko kenn amuñu fa ndey amuñu fa bàyyi mm. mënuñoo wàcc dem weekend fenn instant bi bu ñu leen génne woon ci chambre ñu nekk duñu duñu dem foofu fenn ci Ziguinchor di fa def dañuy obligé ñibbi si te ngumba ngeewul fii te boo xoolee trajet boobu métti na te tamit paas bi métti na te yooyu yëpp loolu maanaam am na ñoom si seen waaye jur yi àttanu loolu moo tax comme avec association la boo xam si dafa ñëw pour venir en aide en aide les étudiants ñoom ñooy taxaw porter leur voix porter la voix des sans voix comme que ñun ñoo ñun ñoo taxaw nii ñoo ñooy les représentants comme ni ko Diouf defee à chaque instant dañuy nangoo doon les zones du sacrifice di di déployer ay moyens pour jéem a chercher autorités yi nga xam si ñi ngi ci géewul ak ñi nga xam si suñu relation jël na fa ngir venir ngir venir en aide les étudiants ak venir en aide l'humain parce que on est on est comme tout. léegi nag comme loolu ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi woo ñëpp daal ci loolu. waaw dañ naan ni ah, ndimbal na ci fekk loxol boroom mm-hmm. te da nga ne association ngeen. Mm-hmm. ah te association yaakaar naa buy door. war ngeen mën a am tuuti lu ngeen di yëngu lu ngeen mën a dajalaatoo ba tey bu ñu ñëwee fekk leen ne am ngeen leen mën a dajal ndax yéen a ngi def ay eh, teg yoo xam ne. gën a mën a am kees boo xam ne war ngeen faa mën a denc dara. bien sûr comme ni nga ko waxee dem ba dafay dafay fekk loxo borom. Mhm. même même chambre yi nga xam si dañ koy wut ak appartement yëpp. Mhm. étudiant bu ne bala nga faa dugg dañ naan la da ngay joxe bii somme. mais somme boobu nga xam si chaque étudiant mi ngi koy corriger. Mhm. et trop maigre pour répondre à nos besoins. bu ñu boolee somme boobu nga xam si étudiant yi ñu koy corriger. ba pare ak ak ak budget bi. mënut a satisfaire suñuy besoins. ndax étudiants yi mënuñu mënuñu la cotiser la benn somme boo xam ne day pléthorique ndax aussi dañu fay toog dafa dund amuñu fa yaay amuñu fa bàyyi problème restauration yi ak yeneen ak yeneen ak ñi nga xam si dañu am problème transport ak yooyu noonu donc ñu ngi def ay cotisation mais cotisation yi est trop maigre pour ñu satisfaire. kon Diagne. exactement. priorité la dëggantaan xam nga peut être li gars yi naan xam nga dajul suuf. Mm-hmm. peut être dañ leen bëgg a dimbali mais xëy na peut être duñ mën a duñ mën a. problème mhm. exactement subito Saint-Louis tous les étudiants à l'unanimité tous les étudiants sans exception. ñëpp fu ñu fa dam li ñuy wax mooy problème bi nga xam ne si mooy problème majeur mooy problème mooy problème bi nga xam ne si ñun bu ñu si dimbalee rek dimbali leen si du lépp. parce que étudiant bi ñoom la solidarité estudiantine à l' université. te mi ngi existé ba tey donc sa copain ni ko mooy ma tikkee ma dem dugg mu may la wala keneen. mi ngi am ba tey mais logement moom. dafa nekk loo xam ne si nit ñi mënoo ñëw ne saa yi may ma loge. Mm-hmm. moo tax université yëpp fi ñu dem mooy leen li ñuy jooytu mooy logement. pour ñu loger parce que tey ngay fay chambre trente mille. wala tey jii imaginer ñun géewul demeewul noonu man nii tey sama papa bu doon fay tey jii nii di ma fay soixante mille chambre Ziguinchor te cinq soixante mille yooyu si laay jël juróom-benn nit yi géewul dugal leen si. ñu koy kolo kolo weeru dem bu ma envoyé quarante mille ma jël ticket wala quinze mille boo xam ne amul sax salaire ru cinquante dafay metti moo tax souvent ñun dañu sonn actuellement problème bi nga xam si daal bu ñu si jàppale ñun ñëpp. du problème mu logement parce que ñun biñ avant ñu jógee Dakar sax mm. yaakaar naa laay posé na question boobu noonu sànq muy maanaam yan démarche lañ def avant ñu jógee Saint euh, kii Ziguinchor euh, woo nañ monsieur le maire mu fixé moom rendez-vous à Thiès bi ñu yegsee Thiès justement ko ni ko carrément tel jour la ñu pare tel bëgg na la rencontrer à telle mm. demee tamit bi ñu nekkee Dakar ci kanamu PSS rencontré naa sama leader yi nga xam ne ni ils sont des

ni ko léegi dama bëgg nga ànd ak Diouf ngeen ñu wàcc si sur le terrain si ngeen xool situation yi étudiants di dundee si campus bi. Mm-hmm. pour que bu président ñëwee nga ànd ak ñoom. nga ànd yow ak Diouf ak étudiant Géoul yi ngeen dem si moom. pour ñu mu mën ni jéem a jàppale benn appartement au moins. Mm-hmm. loolu tamit ay démarches yoo xam ne si dañu ko mettre en place. Mm-hmm. te ni ñu ko waxee ñu ngi si yeneen leader ak yeneen leader yoo xam ne. tey jii nii bis bu leen mënee racontre tamit daan leen rencontré comme ko wax les étudiants à chaque fois dañuy kéemaane dañuy kéemaane mais tamit yaakaar naa ne ñaan bi du ñaan boo xam ne négatif parce que ñaan lu suñu bopp suñu rakk lañ bëgg tey ci suba ñu doon ay cadre yoo xam ne si nii daan mën a imposer Sénégal imposer si département de Kébémer mais defar jiwul gin dëkk suba ndax ndax ndax loolu seen bopp ndax ñu gën leen a mën a jàppale mën koo gën ko mën a wax ci maire ndax xëy na yéen bu ngeen wax yéen rek du sotti force yéen ñi nga xam ne kilifa yi ngeen bàyyi fii ñoo xam ne ngi dund jafe-jafe boobu ndax yéen ngi koy wax yéen leen di wax jafe-jafe yéen dund foofu waaw tey boo xoolee kilifa yi am na ñu ko yëg. comme tey ku mel ne grand laay c'est mon professeur. xam nga am na ñun jaar nañ camp université xam nañ ñi ngeen bàyyi seen kër comme lu mel ne seen yaay seen papa ndax yéen waxtaan ak jafe-jafe yi di dund foofu waaw ñoom ñu koy xam suñu yaay ñi waxtaan ak ñoom parce que des fois da ngay dem sa yaay ne ko léegi-léegi day dund ñoom sax bu la woowee téléphone li la njëkk wax mooy muñal mm-hmm. te ku naan la muñal rek xam ne li ngay dund mm-hmm. des mooy beneen père de famille da lay woo ni mm-hmm. ne kër war a ñëw jàng si ne ko ah fii kët pour mu loger problème la. bu subaa boo ko waatee wala dégg nga woo étudiant mu ne la kët comme que amu fu ma loger maa waxtaanee dana ma kon jërëtul ngay dem jigéen coor parce que nangam. comme que amu fu ma nekk damay obligé bàyyi. kon dèjà xam nañ situation bi nekk te lii tamit initiative bi ñu def tey yaakaar naa ni pour gën a xamal ñi nga xam si xamuñu woon. étudiants yi dañuy dund si campus bi la. parce que Gueoul Art TV ñu koy suivre ci Gueoul te ñu ngi ñaan tamit waa Gueoul yëpp gën ciy mm. pour xool information yi. yi nga xamante ni géewul article yi ñu ngi koy diviser parce que information yi sensible ak yi nga xamante ni client ñu ngi koy ñu ngi koy diviser ñu dem suivre ko dugg xool ba xam ne exactement ñun étudiants yi li ñuy dund parents fils ñun ñëpp ñoo xam ne étudiants yi fi mu ne nii ñu ngi souffrir étudiants yi fi mu ne nii li ñuy dund si campus yi métti na mën na leen a indi yeneen conséquence ba daal seen jàng suba dina am ay rëq-rëq. xam ngeen saa yu gis ñoo xam ne étudiant am dañuy dellusi fi toog. te ñu bari duñu xam lan moo waral seen dellusi toog. ndax bu ñu étudiant rek dañuy yaakaar ni lépp nguur gi leen ko yor. dañ leen di fay di jox euh, kii bu ñu leen jox seen bourse ak yooyu. ñooñu bourse bi xam nga bu ñu déggee tur bourse dañu yaakaar ne ay millions lañ leen di jox. kon dañ naan yéen manqué wu leen dara. comme yéen comme yéen yéen a jël mètre ngeen koy tasaare ci askan bi ñu door a ne ñu gën suñ bourse matul dara lii la lii lii nii lañu dundee foofu askan wi mën a xam ne yéen yéen a ko souffrir yéen a ngi sonn ndax bu ñu sax ma solo si ci yéen yi da ngaan kii daal macha allah dara méttiwu ko dara dara ko kon loolu loolu ñu gis seen gaañu kon nag faaw ngeen mën a wàcc seen bopp mm-hmm. wax wax askan wi ne ñun kër nañu dund fee xëy na bu ngeen xoolee ci kaw gi mais gàncax la rek mais ci biir gi tamit moom mi ngi am lënt lënt ñu ne ci biir mm-hmm. kon yéen a mën a feeñal loolu yéen a war a mën a feeñal loolu dañu bëggoon bu ngeen defee seen programme yoo xam ne fii ci Jumba ngeen mën a leeral askan ni kat ñun ñoo ngi def lii mais am nañ jafe-jafe yoo xam ne tey jii war nañ askan war nañ ci mën jàppale war nañ ci mën a mm-hmm. xam ne fii ci géewu pour ngeen mën a dénoncer lii ngeen xam ne jafe-jafe yi ngeen am foofu exactement man yaakaar naa ni sax man souvent dama koy wax même sama mbokki étudiants yi sax dama koy wax tsubanini gira dinga deg yeb dañ ci participer ces genre truc là mais souvent man Ibrahima Kër bi mu quitté Dakar li mu ko njëkkoon wax sax parce que je pensé boobu sax baaxul xam nga des fois di nga pensé mais da ngay laaj mais dama ni ko woon une fois que vous serez à Ziguinchor je vais appeler la presse avec l'ensemble des étudiants on va faire un point de presse déjà à Ziguinchor avant de entamer la tournée mais finalement mu ne man noonu est ce que duñ def tournée bi pare jéem a xool les démarches mais tey lii maanaam pas bu njëkk la parce que tey jii dañu dañuy ñëw def nañ tournée bi ñëw nañ wax ak autorité yi ñëw nañ toog si télé géewul wax ak waa Gumba xool nag d'ici quelques jours quelques semaines quelques mois ba xam lan lay lii di jur léegi nag bu jurul dara comme ni nga ko waxee euh, comme ni étudiant ni nga waxee on va passer à la vitesse supérieure et passer à la vitesse supérieure ne rien d'autre que woo étudiant yëpp si commune Gumba bi ñu bokk dëkk wala ñu def benn leneen sitting wala point de presse boo xam ne si daan xamal suñu papa yi xamal suñu yaay yi xamal waa Ngoumba xamal autorité géwul yi fi nekk ni leen carrément gët ça ne va pas et ça ne va et on ne plus avancer c' la raison pour laquelle ñu ñëw tey waxtaan ak gars yi mais ñi ngi xalaat te ñaan nañ yàlla tamit mu saafaraw te bu saafaraw moo ñu gënal étudiants yëpp nekk jàmm mu dem jàngi voilà ñëw parce que mooy suñu objectif su moom lañ bëgg voilà xanaa initiative boobu tamit initiative avant ngay def dara mm-hmm. parce que boo jógee sa xol rek mm-hmm. mën na jur leneen quoi. comme ni ngeen def nii nag am kooku la doon xelal loolu. lu baax la mm-hmm. def tournée bi comme kenn mësu ko fay dëgg yàlla ñu nekk nañu ñaar mësu ñoo jug ci tournée. Mm-hmm. di dem di sax ay déplacé dem di Saint-Louis seet ñu nekk kooku yooyu. Mm-hmm. war a rafetlu la. nest parce que li ngeen dund man mi fa nekkoon xam naa ko man dama daan man nga xam ñi gën a jege Dakar laa jógee université laa mais maa ngi doon ñibbi ñaar tali mais teewul dama daan am problème sax. parce que boo demee xam na war a ñëw war a dem jàngi war a a año war a nga war a war ak rang bi ni ñu demee ko mm-hmm. tam ñëpp xam nañu métti la yéen nag dafa gën a métti parce que 18 personnes si benn chambre moom mm-hmm. loolu moom mosu ñëw daal wax dëgg yàlla n'est-ce pas kon nag euh, parents yi jot na ñu xam ñu xam exactement ce qui se passe euh, foofu mm-hmm. ba pare dana war a jàpp tam ñëpp duñu am bourse loolu tamit ngeen leeral ko bu baax bourse yi nan lay demee il faut ngeen leeral buñ parents yi ba xam nan lay demee bourse yi kan moo war a am bourse ak kan moo ko war a am. Hmm. waaw li nga wax loolu tamit dëgg la. Hmm. loolu tamit dafa jaar ñu leeral ko bu baax a baax a baax hmm. déggee wàllum bourse bourse bourse bourse bourse étudiant nekkul salaire. te dañuy jaawale bourse ak salaire. bourse maanaam ak ndimbal na koo xamante ni si gouvernement bi moo jël mooy ñëw accordé ko étudiant te ndimbal lor ñu lay jox nekkul pour nga dund ci wala pour nga dem dëkk ci la pour nga jël ko sa cours yi nga xamante si moom lañ lay dispensé sa faculté ba nga si mën di dem di jënd ay cours di jënd sa ay leçons di jënd yenn fourniture yi boo ko manqué donc gouvernement du Sénégal prévoirul kat bourse bañ lay jox na la da nga siy dëkk da nga siy dund déedéet c' est très loin de ça te bourse boobu noonu mën nañ ni 40 000 la bu bëree bu bëree bu fekkee da nga am demi bourse ñu ni vingt cinq mille mhm. te loolu nekkul ñëpp ñoo koy am sa lémuwéer képp ñoom ñoo koy am mhm. donc dafa jar tamit leeral ci loolu noonu mhm. donc ba tax na bourse boobu noonu nañ jàpp ne mënul couvrir dara lu dul dem jënd sa cours yi nga war a def ak yooyu noonu ndax université kat yemul ak école primaire nga xam si prof bi day ñëw taxaw di wax ko neex nga bind nga noté nga dem sa yoon déedéet kat prof bi day taxaw di projeté bu ko rejeté bu paree ne la ay chef cour bi balancé naa ci email responsable moom mu téye cours yi te 40 millions yooyu ci ngay dem jënd cours téeméer cours 600 cours lii cours lii hmm. boo ba toll benn niveau bi nag dépassé nga sa yaay ak sa pap foo koy wax hmm. jox ma jënd 600 cours jox ma téeméer ba jënd lii nii hmm. bourse bi nag noonu kepp daal la demee donc c' est pour des fins pédagogiques mais pas pour des fins sociaux voilà loolu am na solo euh, ñu gis euh, bu ngeen feebaree wala kenn feebar ci yéen ndax gouvernement koy gouvernement bi mu koy jël en charge wala yéen yéen yi nga xamné ne nek a association bi ñu ñoo koy jël en charge. waaw bu fekkee ñi nga xam si. xam nga bu dee ci logement yi ña fa du ñëpp ñu nekk université. Mm-hmm. ñoom carte étudiant. Mm-hmm. ak ñoom ci ci primaire bi lañ nekk. Mm-hmm. léegi ñi nekk ci primaire bi moom kenn du leen assuré ñu faj. boo amee carte étudiant nag mën nga inscrire foofu noonu. mën nga inscrire de de ce fait boo ñëwee dinañ tenir en compte ñu consulter la. bu ñu la consulter nag ordonnance yooyu noonu. dañ dañuy xool ci li nga xam ne ñu ngi ci kees bi. Mm-hmm. affaire de solidarité ñu jël ko jëndal ordonnance. Mm-hmm. boo fekkee ñi nga xam ne tamit ci période bi lañ bokk. Mm-hmm. ñooñu moom ci sa lépp yooyu dañ leen koy fay. instant boobu doo xaar seen parent wala ngay woo seen parent. a koloo koloo étudiant ak yooyu noonu. wala su dara nekkee ci kees gi rek. ñu jël ko ñu daal ci régler loolu noonu. ba ci kii rek keroog rek ñu ngi koy wax bi ñu def Dakar. am na koo xam si benn cas boobu la ñu am. mujj nañoo koloo koloo jël ko yabal ko mu dem. ci caaro ci ay mbokkam. Mm-hmm. daan ko yee tamit ah, ah, ñu ngi nekk ci jaxantalu waxtu heure bi mm-hmm. ah, kon président lan ngay tàggatoo. waaw Alpha comme li tàggatoo di woo suñu autorité yi ñi nga xam ne si nii ñu ngi si géewul. monsieur le maire de la commune Serigne mu def effort yokk ay effort mm-hmm. daaw. bi ñu toogee ba situation yi bi ñu ko woowee jënd na benn chambre à 600000 di cadre mooy chaise boobu noonu de 12 personnes. Mm-hmm. ñu ngi koy ñaan sa année ci mu jënd ñett. ñaan aussi yeneen autorités yoo xam ne si ñu ngi géewul di doomu géewul mën mën dara. Mm-hmm. tamit ñu ñëw jàppale étudiants géewul yi. ñu mm-hmm. ñaan kilifa diine yi. Géewul at bi ba mën a nekk tey jii nii télé bu mag boo xam ne si au niveau national ba international lay doon di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax aussi alfa merci si parce que depuis bi ñu ko con euh, contacté yaakaar naa ni daf ñu jàppale te lii jàppale say rak ci la bokk li ngeen def ci jàppale ñu la bokk tey mënoon naa leen ko euh, woo ngeen nañu ñu voilà vous allez tel parce que on a besoin tey jii ni jéewul dégg ñu mais da ngeen bàyyi seen activité ñëw ko jàppale étudiants yi pour def le maximum pour Sénégal géew gi yëpp dégg ne étudiants géew yi que lii la ñuy raconte euh, daj ci campus yi pour que képp ñu ñëw ñëpp ñi nga xam ci mën nañ ko ñu ñëw jàppale ñu ba ngeen situation donc nous vous remercions solennellement au nom de l'AGEC et nous vous demandons solennellement à tous les étudiants de venir abonner à la site de Gueoulart TV pour l'avancement de la commune. Nous ngi à travers Gueoulart TV di centaines tamit Alpha Maam yéen ñi nga xam si yéen ñu dal ci plateau comme di lancer appel rek ci ñëpp muy étudiants yi ñu gën a ñëw booloo xam nga mën nañu nekk mbooloo ñu parce que bu nekkee booloo mbooloo dans la division jarul ñuy ñuy am mbool mais bu nu boolawee lu lu nu bëgg dinañ kam ñu yëkka yëkkateendoo di dóorandoo di wax tamit parents yi maanaam ñi nga xam ne si ñu ngi seen doom yi di di leen laaj ay xaar sax yooyu noonu ñu xam ni dund ngaa xalaat dund ngaa métti foofu noonu rek te du ay teg diir wala nangam sangam dund ngaa métti dañuy nekk dans le besoin te ku ku sañoon nag doo toog di di laaj sa parent dara ci yenn âge waaye des fois nag maanaam àdduna bi moom moo xëy di wax rek comme ni ko maam see waxee

mais grâce à vous di xam li li xam bi bu ñu ko xam à temps temps sax mais dinañ ko xam ci yeneen jamono kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di wax ñëpp rek ñu abonné parce que bu avancé rek ci ñun la avancé parce que l' avenir de Géoul est en nous te Géoul tamit fu développé ñun ñoo développé. ah waaw comme ni ko sama naw la yëpp defee rek duñ def lenn rek lu dul di leen sant ak di leen gërëm bu baax a baax a baax a baax mais également aussi avant. de guider man fi ma gën a mën a appesantir mooy sama mbokk étudiants yi comme ni ko monsieur le vice waxee rek mbooloo moom mooy doole waaye étudiants yi bu ñëwee seen ay problème kese la ñuy wax xafee ne mais une fois ñu ñëw géwul du ñu booloo du ñu jéem a réaliser dara pour maanaam suñu commune loolaat bu boobaa tamit loolu dafa yéeme lool lool lool lool ba tax na. ñuy lancer appel mboolem étudiant que ça soit nga nekk Dakar que ça soit nga nekk Ziguinchor que ça soit nga nekk dans le public ou bien dans le privé et même ceux qui sont dans les universités virtuelles ñu ñëw engagé wu ci lii nii parce que lii nii kat moom mooy tax nekkinu ñëpp mën a jaat yoon foofee ñu nekk bu ñu mën a réussir kat mission boobu nga xamante ne si dugg nañ bàyyi ndey bàyyi bàyyi pour doxi ko mais également aussi maa ngi woo ah di lancer appel mboolem autorité bi nga xamante ni si mi ngi fii nii ci géwul di leen wax kat gars yi fee sonn nañ trop on le dit de façon directe jabat nañ donc bu ngeen mënee ñëw tamit jàpp ci lii nii ay doom seen ay jarbaat seen ay rak seen ay frère itteewoo nañ ko bu baax a baax baax donc je ne vais pas venir sans pour autant remercier waa géwul artiste bi parce que ngi bu baax en tout cas on vous remercie di remercier mboolem waar Géoul képp kuy doomu Géoul rek ñu ngi lay bu baax a baax a baax a baax a salaamaaleykum wa rahmatullah. voilà ah, merci remerciement yi dañ leen koy envoyé waat parce que ñoo ko bokk comme ni ko Europe di waxee ay anciens étudiants lañ en même temps tamit ay Géouluwaay lañ. suñu suñu rakk ngeen bu war nañ cee taxaw war nañ cee taxaw kon remerciement ngeen a baax rek di ko def quoi mais suñu devoir la mm. xanaa kay fi may renforcer mooy tamit. ñi nga xam ne tamit jaaroon nañ géewul jànge fi ba am yàlla dimbal leen ñu ñu génn leen dëkk bi ñu nekk à l'extérieur mooy ñu nekk ci diaspora bi tamit ñooñu tamit soxla nañ ñu jàpp si nest parce que fii gis naa fi ay ñoo xam ne tey fi ba am bac wala ñu jógee si université yi jógee fi dem dem à l'extérieur mm-hmm. n'est-ce pas dem ba ba fay liggéey ñoom tam war nañ gëstu seen rakk yi tamit boobu mm-hmm. tamit bëggoon naa tamit ñu taxaw si ñëw ñu ñëw jàppal leen mm-hmm. voilà kon daal Alpha naa dégg naa lancement yi ñaa kii lancé na appel bu am solo ni si ñëpp jàpp jëf maam Cheikh président kaddu gi rafet na ñu ngi leen di jaajëfal di woo képp koo xam ne doomu géewul nga nga dégg li nga xam ne moom yi wax nga xam ne doomu doomu avenir monsieur le maire ngeen ci buuba gépp nañ ci jàpp ñeneen ñi ci biti émigré yi ñoom ñëpp ñu def seen loxo jàpp ci xam ne suñuy rakk lañu suñuy doom lañu suñuy jarbaat lañu kon ñu ngi woon fii ci Géoul TV ak bi ñuy wax gindi askan wi tey ñu dalaloon ci ñi nga xam ne mooy étudiants yi ñu ngi leen jox dig daje ba beneen yoon jërë ngeen jëf